boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalib yi teg di mbokki section Jamaahirul Ahibaa aussi àlansan ñu ngi leen di nuyu te bi ñu sante borom bi tabaaraka wa taala jullit di jaajëfal ak Cheikh naa Cheikh Ahmadou di jaajëfal mboolem jëwriñ yi tedd yi dox suñu diggante moom di ñaanal Cheikh bi ko delloo fanam loolu te wéeru bi kàttanal ko ba yekkale ko ànd ko mboolem taaliba yëpp noonu lañ koy ñaanal Serigne Abdou Khadar xalifab Serigne Darou Hassane borom bi ko delloo fanam loolu te wéeru ko mboolem lu yéen liggéey lislaam borom bi kàttanal ko mu yekkale ko ànd ko mboolem taaliba yëpp mbokk yi Jamaatul Ahibba aussi Alassane section bu Touba ci njiital Serigne Khadim Dia imam ñooy dellu am mbégte teewaat ak yéen ci jotaay bi am solo bii nga xam ne tey dajale mbooleem njabootu Serigne Darou Hassane gépp di leen leeral lenn ci tolluwaay bi liggéeyu Serigne Darou Hassane bi moo xam li ñu romb la fi ñu toll ak li ñu dem man na commission yi nga xam ne ñoo composé bureau comité directeur bu Touba wala bureau section bi. ñu leeral seenu liggéey mbokk yi xam naa dañuy njëkkante waxtu wi rek tënk suñu kàddu ci ñeenti tomb tomb bu njëkk bi di secrétaire général bi di Serigne Cheikhouna Ndiaye moo jàlle rapport boobu ñaareel bi tomb di kàddu mag ñi di bàyyi mbay ñetteel bi tomb di kàddu bureau section bi di jiital kuréel gi di Serigne Khadim Ndiaye imam ñeenteel bi tomb di kàddu sëriñ bi Serigne ma Jëmm mi nga xam ne waaye kàddu kër gi dina ci ñëw insha kon mbokk yi ñeenti tomb yooyu ñu fas yéene waxtaan ak ñuy ñaan ci mbooloo mi ñu mën ak dal gu ànd ak teewlu kàddu yi moo doon suñu njariñ ñu mën koo dégg mën koo defee ba yeneen i jotaay kon képp koo xam ne am nga information bu jàllale nga dem ci taabal ji nga gisee Serigne Modou Bara jaay kon ñu ngi tawal foofu di jox Serigne Cheikhouna Serigne bi bismillah a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam sant al cheikhul xadim ñoo ngi ñaanal kilifa ak yoon wi cheikh mahmadul muntaqa suñu borom yàggal ko fi tamay ko ak wér ba yéeneem ak mbébétam ci toolub Cheikhul Khadim suñ borom may ko kattan gum ko àggalee ci sagoom noonu yéen lañ koy ñaanalee kii fi toogee jataayub sëriñ Darou Assane di sëriñ Abdul Qadir ñaanal ko suñ borom yàggal ko fi loolu te may ko ak wér ak mboolem njabootu sëriñ Darou Assane ginnaaw loolu mbokk yi section bu Touba jamaatu ahibaayi Cheikh Assane dellusiwaat na ak yéen ci jotaay yi mu baaxoo amal ñu di ko duppee assemblée général sunu jotaayu tey bii ñu fas yéen leen a leeralal li nga xam ne moo tukkee ci programme commission yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci bureau section bu Touba ci seenu waajtaay jëm ci màggalu Serigne Darou Assane gi ñu dëgmal mu war a doon la 20 janvier 2024 mu mel ne at bi ñu jëmit day tombeek téeméeri at ginnaaw bi fi suñu sang bi sëriñ Darou Assane bàyyi ko ak léegi ba tax na mu doon màggal goo xam ne mën nañu wax ne màggal gu ràññiku lay doon ndax mooy màndargal centenaire bu sëriñ Darou di ñaan su borom subhanahu wa taala mu yóbbu ñu ci ak jàmm kon dañuy tàmbalee ak commission culture bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy waajale màggal gi sas nañu mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci section bu Touba ak yi nga xam ne ñoo nekk ci bitib dëkk bi sas nañu leen kenn ku nekk na jàng juróom benn fukki kaamil ak juróom benn juróom benn fukk ak juróom benn mooy tombeek wala mooy tolloog at yi nga xam ne moom la sëriñ Darou Assane yàlla anhu dundu ci kaw suuf te comme dañuy waajal màgg sëriñ Darou muy tombeek téeméeri at ba fi bàyyi ko yella na kon ñu waajale ko ak téere bi sunu borom bi kàrte bu ci nekk daayira bu ci nekk ci biir dëkk beeg bi ti dëkk bi nañu jàng juróom benn fukki kaamil ak juróom beneen ba ca topp mooy journal alxasan bi nga xam ne moom lañu ñu baaxoo bind màggal gu nekk journalu leen bi incha allah mi ngi dellu siwaat ci dund ak jaar-jaari sëriñ Darou Assane radiyallahu ñetteel ba mooy exposé bi ñu daan def moom itam di baas bi nekk ci buntu kër sëriñ fas si la exposé boobu moom it mi ngi jëm ci dund ak jaar-jaari sëriñ Darou Assane radiyallahu anhu ñeenteel doom bu mooy am nañu yéene fas yéene nañu dinañu moolaat téere bi yi nga xam ne mooy téereb sëriñ daarul xasan bi ñuy wax ada ali xamarun fas yéene nañu ko mool defaraat ko ba mu gën a yaatu ba mbokk yëpp man cee jot loolu bokk na ci seeni yéene ci at bi ñu nekk incha allah bokk na ca itam bëgg nañoo bind ab kaamil boo xam ne ci benn bis lañ ko fas yéene bind bu ñu fàttali ko sëriñ bi ca njaareem mas naa loo taalibe yi ab kaamil ci benn bis loolee nag moom la njabootu sëriñ Daaru Asan gi bëgg a tollanti ñoom itam bind ab kaamil alxuraanul karim lomm ci benn bis loolu kon ñi nga koy yëgal mboolem jàngkati alxuraan yëpp ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ci téer bi suñ borom bi ñi nga xam ne ñooy coordonné liggéey boobu mooy commission culture ku ci bëgg a barkeelu nga jàkkoo nga ko ak ñoom incha allah dinañ dikk ak yéen ci date bi nga xam ne moom lañ ko fas yéenee bind bu soobee yàlla leneen la ñu topp mooy dinañuy def ay plateau yoo xam ne si ne dañ koy def ci télévision yi ak rajo yi ak site internet yi ànd ci ak waa commission communication di ci waxtaani dund ak jaar-jaari sëriñ Darou Assane radiyallahu anhu waaye itam ak njabootam gi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon jamono daan liggéeyal sunu borom subhanahu wa taala bokk na ci itam fas yéene nañoo taxaw guddeeg aljumaa bi nga xam ne moom lañu amaloon daaw te fas yéene ko amalaat ren fee ca buntu ko sëriñ ba di ko waajalee màggalu sëriñ Daaru Asan gi moom itam danañ ñëw ak yéen ci date bi bu soobee yàlla waaye commission culture ñu ngi koy waajal te di ci soññ mbokk yëpp bokk na ci itam fas yéene nañoo dundal bâche bi ci ay kuréelu xasida xasida ci bisu màggal gi incha allah ci diirub bëccëgu màggal gi yépp ñuy dundal ci njàngum alquran njàngum xasiida ci yëkkati ak rajas moom itam incha allah commission culture bi fas yéene jëri taxaw ci màggalu sëriñ Darou Assane gi kon loolu mooy li nga xam ne bokk na ci waajtaayu commission culture bu dee ci commission sociale bokk na ci seenu li nga xam ne moom la ñuy waaje màggal gi bokk na ca danaan amal ab set satal bu mag ci màggalu sëriñ Daaru Asan gi bu ñu ko dëgmalee incha allah muy set satal boo xam ne danañ ci ànd ak ñii di waa UGC ñi nga xam ne kuréel la goo xam ne état bi moo ko fi teg dénk ko lépp lu jëm ci wàllu set satal moom lañ ci fas yéene àndal incha allah ba tey ci bis boobu dinañu ànd ak waa service d'hygiène daal di pompe mboolem kër yi nga xam ne. moom lañu moom la ñuy amale màggal gi di fa dalal gan yi moo xam kër sëriñ si la moo xam bâche la ak fépp fi nga xam ne rek day aju ci màggal gi loole fas yéene nañ koo amal incha allah kon bisu set setal boobu ñu ngi ciy soññi mbokk yopp di leen xamal ne ren ji liggéey bi dana gën a yaatu ndax dañoo fas yéene tàmbale ca mbaarum daarul xuddus daal di koy àggale ba ca koñu tokkoor ba kon xam nañ ne loolu liggéey bu mag a mag la te gis nañ ne ci at yi weesu mbooloo mi daana néew lool kon nag loolu ñu ngi leen koy yëgal bu baax a baax a baax na ci ñëpp bàyyi xel bu bés baa ñëpp bàyyi seen yitte ñëw euh, ànd ak commission sociale ak waa service d'hygiène ak waa UGC ci loolu nga xam ne moo di bisub set setal boobu ñaareel ba mooy nu amal bisub mayee deret comme ni ñu ko baaxoo defee ci at yi weesu incha allah bu nuy suba la màggal gi ci la ñuy amal bisu maye deret boobu moom itam di lu am solo di loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na cee bàyyi xel ndax dimbalante la te dimbalante du ci alal rek waaye kenn ku ne dañoo war a dimbalante ci suñuy jëm di ci dimbalante ba ci deret koo xam ne si ne daf koo soxla ñu dimbale ko ci kon nag ñu ngi leen ciy soññ yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel beneen ba ca mooy le 19 ak le 20 mooy bu ne suba la màggal gi ak bi su màggal gi yëpp waa Croix-Rouge sénégalaise dinañu teew ci màggal gi ànd ko waa centre de santé Cheikh Mahmoudou Moustapha bi nekk ci tokkoor bi ñuy jàppale mbooloo mi ci képp koo xam ne da am jafe-jafe ci wér yaram nga mën a dem ci ñoom ñu xettali la dimbali la ku ne xam na ne ci bésu màggal gi rek lañu daan teew waaye ren jii dañoo fas yéene ànd ak yéen ci ñaari fan yépp ngir ñi nga xam ne dañuy am jafe-jafe ci wàllu wér yaram ñu mën leen a dimbali beneen ba ja topp mooy dina dinañu amal consultation gratuite maanaam dañuy seet seeni yaram ci wàllu jabet muy feebaru suukar képp koo xam ne yàlla def na ne ne am nga ko wala sax koo xam ne bëgg ngaa xam rek fu sa suukar toll nga dem ci ñooñu nga xam ne ñooy euh, ñiy def loole di ko seet di mouvement diabétique yu Touba ñoo ko fa yéenee taxaw kon ñu ngi leen ciy soññi yéen ñëpp ngeen bàyyi ko xel ngeen ñëw ngeen ñu seetal leen seenu yaram yéen ñëpp. beneen ba jo mooy bisum màggal gi ay docteur dinañu teew taxawu leen ci wàllu faj ci lu ngeen dul fay dara képp koo xam ne. da nga am jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram boo ñëwee ci ñoom dana la taxawu ci loolu fay dara loolu nag ñu ngi ciy ànd ak waa district bu Touba ci njiital docteur Ndeye màggat Diop ñoo fas yéenee ànd ak yéen dimbalu leen ci seen wàllu wér-gi-yaram loolu incha allah dina am ci le 19 ak le 20 ci màggat gi incha allah leneen la ca topp mooy fas yéene nañoo lancé campagne dimbalante ci wàllu ak col maanaam ay yére. comme ni ñu ko baaxoo defee ci at yi ñu génn bu nu ko dajalee ba noppi séddale ko ci koor gi loolee fas yéene nañ ko lancé ñu xam ne tàmbali na bisub tey jii képp koo xam ne am nga yéene barkeelu ci nga jokkoo waa commission sociale ba nekk ci sa quartier nga jox leen ko ñu dajale ko waaye ñu xam ne yemul rek ci ay yére waaye moo xam xaalis la moo xam café la moo xam suukar la moo xam lu mënti doon loo xam ne nit dana ko jariñoo ku ci jaww koog waa commission sociale nga teg ko ci seen loxo dinañ ko dajale ba mu mat ñu dimbali ci mbokk yëpp. beneen ba topp mooy bëgg na noo gën a feeñal ñu am ay entreprise ci kër gi te bokk ci njabootu sëriñ Darou ba ñu gën a dugganteeg mbooloo mi ba képp ku koo xam ne bokk nga ci njaboot gi boo demee ci ñoom moo xam da ngaa bëgg liggéey liggéey dana lu yomb moo xam bu fekkee ne it. looy soxla ñu liggéeyal la ko liggéey ba dana gën a jàppandi ci yow loole bokk na ci liggéey bi commission sociale bëgg nañ koo gën a taxaw ba diggante bi gën a rattax ba mbokk yi gën a xam ñi am liggéey ci biir kër gi ba nga xam ne boo amee liggéey nga mën koo teg ci seen loxo ñoom nga bare nga koo génnee di ko jox yi keneen nga jox ko ñooñee nga xam ne sa mbokki taalibe lañ te bokk ci njabootu sëriñ Darou Assane beneen ba ca mooy bëgg nañu xew-xew yi amal balaa màggal gi mbooleem jataay yi bëgg nañ cee boole ay waxtaan yoo xam ne ci wàllu wér-gi-yaram lay jëm rawatina jàngoro yu mel ne feebaru jabet ak jàngoro yu mel ne euh, yeneen yi ci des lu mel ne euh, feebaru rein ak yu ne demee waaye itam bëgg nañoo waxtaane solos mayee deret ban njëriñ la am ci société bi kon loolu itam bokk na ci li nga xam ne waa commission sociale bëgg nañ koo amal incha allah ginnaaw commission sociale euh, programme commission communication bokk na ca fexe ba jotal mboolem information yi lépp loo xam ne xew na wala ba ci màggalu Sëñ Daara Seen gii ñu mal lépp lu aju ci mboolem programme bu ma buñ mën a am ñu fexe ba ñëpp jot ci moo xam ñi nekk ci biir réew mi la moo xam ñu nekk bitim réew ñu fa yéene ba fu waay mënti nekk mu mel ne yaa ngi ci béréb boobee. bokk na ci itam amal ay émission ak i plateau amal ay émission ak yi plateau ci télévision yi ak ci site internet yi ak ci rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ak ci dëkk bi yëpp. kon bu ko defee kon dañuy taxawlu ñu daal di noddu daal di julli waxtu timis wi buñ ci noppee incha allah ñu àggale li déggale li nga xam ne moo des ci euh, li ñëw xam ne moom lañ waroon a jàllale mu mel ne ñoo ngi tolloon ci programme commission communication bokk na ci fexe ba jotal mbooleen information yi mu àgg fépp foo xam ne si ne taalibeb Serigne Darou Assane ma nga fa ak def ay émission ci plateau télévision yi ak si internet yi yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ak yi nekk ci biti dëkk bi beneen ba ci topp mooy fexe ba xamal mbokki taalibe yi dëkk yi nga xam ne njabootu sëriñ Daaru Asan gi ñoo ko sanc comme ni ñu ko defee woon daaw ci dëkk bu mel ne Daaru Njaay moom sëñ Bàcci ak Daaru Rahman moom sëñ Abdu Rahman moom sëñ Ibrahim mu mel ne noonu lañ ko fas yéene defewaat ren jii fas yéene xamal mbokk yi mbokki yi dëkk yi nga xam ne njabootu sëriñ Daaru Asan gi sanc na ko bokk na ci seen programme ba tey samp ab podium ci bi su màggal gi muy plateau télévision yi ngeen faral di gis ñu di ci dalal ay gan di waxtaanee li nga xam ne moo aju ci màggal gi yëpp. bokk na ci ba tey amal ay émission yoo xam ne dañ koy jëmale ci njabootu sëriñ Darou Assane gi moo xam doom yi la ba ci mbokki taalibe yi magi taalibe yi ñëpp ak cheikh si nga xam ne ñoo àndoon sëriñ Darou Assane radiyallahu anhu bokk na ci itam dinañu tourner avant première bi muy bis bi nga xam ne. ci la ñuy tàmbali liggéeyu màggal gi yëgle ko ba àdduna sépp yëg ne bisub Serigne Darou Assane mi ngi ñëw bokk na ci itam defar ay affiche ngir siiwal màggal gi fexe ba defar affiche yoo xam ne dañ koy taf ci mbedd yi moo xam fu mu mënti doon ba fu waay mën a romb gis fa luy mandargaal ne bisub Serigne Darou Assane bi jege si na ba àdduna sépp mën ko bàyyi xel bokk na ci itam amal ay émission ci rajo locale yi rajo yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaat bi ak rajo yi nga xam ne mooy rajo yi mag yi nekk ci biti dëkk bi dafa ay waxtaan jëmee ko ci Serigne Darou Assane ba ñëpp xam kan mooy Serigne Darou Assane ak nan la doon dundee ci euh, kanamu sëriñ bi radiyallahu anhu bokk na ci itam amal ab séminaire mooy bis boo xam ne dañ ciy waxtaanee doxiinu jamaatu ahibaa yi Sëriñ Assane ku ne xam na ne daayira ba mu sosoog léegi mën nañoo wax ne bu doon jëmm la ñu ne léegi toll na ci doon waxambaane ndax boobaak léegi war naa mat ñaar fukki at ak juróom-ñaar. moo mel ne jot nañu waxtaane waat ko ba kenn ku ci nekk ñun gën a xam lan mooy dëgg-dëgg liggéey bi rawatina ñu ndaw ñi nga xam ne ñu ngi doog a soowu ci liggéey bi ñu gën a xam lan mooy jamaat ah Baye Sall Assane ak lan moo doonoon jubluwaay bi kon séminaire boobu incha allah commission communication dina ko taxaw ginnaaw commission communication commission organisation bokk na ci seenu mbébét ci màggal gi nga xam ne moom la ñu dëngal mooy fexe yokk sécurité bi ba ñu ngi xalaat indi fi ay takk der ci bisu màggal gi ndax ko ne xam na ne am mbooloo fu ñuy dajee faw dañoo war a sàmm seenu sécurité rawatina foo xam ne ay téeméeri téeméer wala ay junniy junni nit ñoo fay daje kon war dañoo teg lu mel ne ay takk der yoo xam ne danañ sàmm mbooloo mi sàmm seeni am-am ba benn def ko tu ñawteef du leen mën a jege ba lenn loo xam ne day yàq màggal gi ba mu koy gàkkal di fa jege kon loolu bokk na ci yéeney commission sécurité bi. bokk na ci itam defar ay gilet gilet yoo xam ne pour waa commission communication bi euh, waa commission organisation ndax ku ne xam na ne bis boobu mbooloo mu baree bari danañ fa dajee te dana ci ñu am ñoo xam ne xañ na fa nga leen di gis ak la nga leen di gisee ñu koy doxee mën nañoo jàpp ne ñii waa organisation la te fekk na du ñoom kon fa baax na ñu def loo xam ne ab xàmmikaay bu wér lay doon def ci logo boo xam ne logo Jamahiratoul Ahbab Baye Cheikh Alassane xam ne nag amul lu werante ku leen ne ñii ñooy ndaw yi commission bu Jamahiratoul Ahbab Baye Cheikh Alassane bokk na ca itam fas yéene nañoo gën a wanewaat nag beneen xar kanam gu yees ci commission organisation wanewaat lan mooy dëgg-dëgg liggéeyu organisation ak taxawaay bu am solo bi ñu am ci këru Serigne Darou Assane commission organisation fas yéene cee gën a taxaw ba mu gën a am beneen jëmm bu yees peq boo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët beneen ba jo topp mooy fexe ba seeni ndaw matale fépp foo xam ne commission organisation moo fa war a taxaw ci seen liggéey ci bisu màggal gi ba nga xam ne comme ni ñu ko daan gisee ci at yee daanaka léeg dana am liggéey yoo xam ne yeneen i commission ñoo leen koy taxawal loolee ñoom fa yéene nan ren jii ñoom seen i ndaw jàpp nañ ne matale nañ ko ba fépp fu nu war a taxaw seen i ndaw danañ fa taxaw ba tax na ñi ngi sàkku yit ab bâche boo xam ne bâche bu ñuy dalal seen i gan yi bopp lan yi nga xam ne dañoo ñëw ci màggal gi ngir jàppale lañ ci liggéey bi point bi ci mujj mooy fexe ba daaira yi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi nekk ci biti dëkk bi ñoom itam ñu ñëw ci màggal gi bu ñëwee ñu gis ci seen bopp ñu ànd ak commission organisation nekk ci liggéey bi nekk ak ñoom ci waañ bi ak fépp foo xam ne si ne commission organisation yi nekk ci biir dëkk bi ña nga fa ñu nekk ci biti dëkk bi ñoom itam gis ci seen bopp comme noonu ñoom itam loolu bokk na ci liggéey bi nga xam ne fas yéene nañ koo amal ren kon ginnaaw loolu lépp nag li nga xam ne mooy programme commission yi dañuy ñëw nag ci li nga xam ne moo di dat yi nga xam ne ci lan fa yéenee amal euh, programme yi nga xam ne yu ci bari junj naa ko ci euh, programme yi commission yi weesu te ñi nga xam ne ñoo ko tënk mooy bureau fédération bi nga xam ne mooy fédération bu jamaat ahbaay si alasan bokk na ca mooy bëgg nañoo amal ab CRD mooy bis boo xam ne dañuy dajale ndawi état bi lu mel ne police gendarmerie euh, service d'hygiène ak ñi nga xam ne si ne moo di gouverneur mi nga xam ne mooy organiser jataay boobu ñu waxtaanee nag nan la ñuy amalee màgg suñ daaru sam ngi fexe ba mu jaar yoon ba kenn ko ci nekk ci service yooyu noonu kenn ku ci nekk fa nga war a taxaw ba màggal gi jaar yoon ñu taxaw fa CRD boobu fas yéene nañ ko amal incha allah bokk na ca itam danañ amal ay bis ngir waajale ko màgg sëñ daaru asan gi ak bis yoo xam ne si ne cheikh yi sëriñ daaru asan yi lañu ko jagleel bis la ñuy jiitu mooy avant première bi mooy bis bi ñuy tourné euh, vidéo bi nga xam ne mooy wër àdduna yëgle ne màggu Sëriñ Daaru Asan gi mi ngi dugg si bis boobu dinañu ko amal le 10 décembre bi ñu dëgmal incha allah ci la ñuy tourné avant première boobu. la ja mooy séminaire bi nga xam ne moom laa doon tudd léegi te commission organisation wala commission communication di ko taxaw séminaire boobu commission communication di ko taxaw danañ ko amal le 11 décembre incha allah. bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel sëriñ Abdou Fatim Mballo di taawub sëriñ Darou Assane nu ko amal le 19 décembre bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel sëriñ Fallou Ndiaye moom sëriñ Darou dinañ ko amal le 26 décembre bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel sëriñ Bay Fallo radiallahu anhu dinañ ko amal le 2 janvier 2024 incha allah comme mel na ñett ñooñu la ñu tànnoon ci njaboot sëriñ Darou gi tàmmalee ci ñoom liggéey bi nga xam ne ñoom la ñu jagleen bis yooyee ci at bi muy sëriñ Abdou Fatim Mballo sëriñ Fallou Ndiaye ak sëriñ Bay Fallou ñoom la ñu tànn ci at bi incha allah ziyaara général bi bi ñuy amal ci kanam xalifa bi incha allah dinañu ko amal le 9 janvier 2024 guddik aljuma bi ñuy amal di ko jagleel sëriñ Darou Assane fii ci kër ba ñu ngi koy amal le 11 janvier incha allah bisub set setal bi waa commission sociale di taxaw ñu di ko tàmbalee mbaarum daaru xudóos ba jokko ñu tokkoor ba ñu ngi koy amal le 15 janvier 2024 incha allah bis bi nga xam ne moom la ñu jageel jagleel seex yi nu ko amal incha allah le 17 janvier 2024 bis bi nga xam ne ci la ñuy amal mbindum kaamil bi kaamil bi ñu bëgg a bind ci benn fan te commission culture di ko taxaw bis boobu danañ ko amal le 18 janvier 2024 bu màggal gi desee ñaari fan ci lañuy amal mbindum kaamil boobu incha allah bis bi nga xam ne moom la sëtaat di sëriñ Darou Sani baaxoo amal di ensemble général euh, Minanu Baaxil Xadim bi lëkkalee sëtaat di sëriñ Darou Sani le 19 janvier incha allah ñu daal di jublu nag ci màggal gi la 20 janvier di ñaan suñu borom mu yeggali ñu ca ak jàmm te lépp loo xam ne ñaan nañ ko fa baa ñu def ko fa suñu borom nangu ko te jotale yool bi yëpp sunu sëriñ sëriñ Darou Sani radiyallahu anhu ñi ngi tuub tey jéggulu ci njuumte yi lu ci jub borom bi la lu ci dëng sunu matadi la in uridtu ila al aslah mastata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi lay sant bu baax la gërëm ci raat bu am solo boobu nga doon jàng léegi kon ñu ngi ñaan baax borom bi may ñu ak dégg gu ànd topp kon ñu jàll ci ñaari bi tomb di kaddu mag ñi sëriñ Mbay nu mbee bismillah wa fi alanin min sari iblisa haysun xala aw rakala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 di jéem a aw ci tànkam wéy ci ndigalam waaye du ku ñuy xam bu doon ku ñuy xam yaakaar naa ni ñun mag ak kilifa yu tedd yi wax nañ fi lu doy xam sëkk waaye doonul ku ñuy xam li ma ciy jëkk wax ci loolu soxna Fatim Mbakke moom Seyxul Xadim ba mu tànn yëkkati ko jox sunu sang sell ba mu ñëw di laaj Seyxul Xadim man de ki ma booleel xaw ma mu ne ko demal laaj ko sabaay Afe mu ñëw ci kër Cheikh Afe Mbakke rekki maam Cheikh Anta laaj ko ne ko man de kii ma boole dama ko xamul mu ne ko kan mu ne ko Serigne Darou Alxasan Ndiaye Serigne Afe ne ko kooku la sa booleel kuy taxaw ci kaw suuf si ku dul sa baay gënal ko ki la sa baay booleel kuy taxaw ci suuf si ku dul sa baay gënal ko ba mu waxee loolu mu daal di sukkandiku doon jëmm joo xam ne fas yéene doonu taalibe rek lépp lu taalibe di maye mu fas yéene jaar ci yoon wa kon nag ku am loo xam ne li xamoo ko xam ko te amoo ko am ko te xamoo ko moo ko gën soo ko amee te xamoo ko da nga fay nekk ba gisatu ko ni seen Cheikh Mariam mu mel ku ne naan su xamoon su xamoon fekk faat na ak i magam ak i rakkam yëpp gannaaw am ko te xamoo ko nag xam ko te amoo ko moo ko gën yal nu sëñ Tuubaa gindi ci barke sëñ Daaru Asan ban xam kan mooy sëñ Daaru Asan sopp ak wóolu rek képp koo xam ne suñu borom dogal nga bokk ci moom war ngaa sant yàlla ndax xam ne luñ la fàggul la waaye du soog fàggu ndax Seyful Asan sama waajur lu tedd dégg naa mu wax ne soxna Koti gi maami sëñ Bay Roqaya dafa ànd ak soxna Fatim Mbakke ñuy siyaare ci Seexul Xadiim ne bi ñu agsee ba ñu nuyoo ñu fay leen wax na leen jàll si bi egsee sukk nuyu mu ndax moos muur asal léegi li jóge fii na Koti gi moom am nag dal waaye soxna Fatim Mbakke mu ngi lox ba yaram bi tàggu sagoom mu ne ko Mawla Sën Mbacke moom moom lu mu doon dox mu ne ko dafa wax ne borom doo ko jox cër bopp ci àjjana def na ci set ak setaan ñu doon bi dundagul ak képp ku bokk ci moom ba ku ne géejal waaye dafa des loo xam ne mbooy gi metti na ko mu ne ko mbaa lam doonul am na ko soxna côté gii mooy wax waaye soxna Fatou Dia moom nekkatu bi mu ne ko waaw am na ko def nañ képp ku dugg turu mu sëriñ Fatou Assane sëñ Darou Assane Ndiaye képp ku dugg turu mu neex la bala ngaa lakk daa feesal kon nag képp ànd ak moom war góor-góor ci yett na nga defoon maandu na nga doon ko pastefu foo nekk nañu lay roy lépp loo xam ne lii lu baax la nañ la seen démb ci woon am na ku doon wax ca Portugal muy sëñ Abdou Sey na ma seen gone yi fi ne nii fa tabaarakallah li leen si yàlla woon sant leen ko ña nga ca tuddul ma gone yu takku ci koñ bii ak feneen ak feneen ñoom ñëpp daal lii seen yitte mooy liggéey jaamu yàlla bu ñëwee jàng xasaa it bu ñu wootee day ñu dem léeg-léeg ñu jàng barab yi ñu day dafa jàng alxuraan ni ngeen ko bëggee woon noonu xam mag ña bëgge woon ca la ñu nekk ma dégg ca ay Italie mbaalo sunu moom mbaalo moom soxnañ ci sali mu am kuréel yu mu fa dajee ñuy waxtaan ci mbirum Sariful Aslam radiyallahu anhu sëñ mbaalo nee na ba mu daatan tàmbali wax na ay ba dafee xëju te mbir mi daanaka moom koo xam ne kii yaa ngi wax war ngaa bàyyi xel ci ne ñii fi ne ñëpp njabootam gépp ñu ngi dégg xool te ñu ngi déglu li ngay wax ma gis benn italien boo xam ne fa la juddoo mu ñëw ñu def ko télévision bi yàlla dogal muy wax ci mbirum Serigne Assane ba njëlbeen nga ba mujj ga ba mu àggalee ñu indi koo xam ne moom tam fa la juddoo waaye wolof la moom it mu wax lam ci wax ci wolof maa la nag kon nag dañ doon wax bu maa ngi demee lu baax jeex nañu xam ne lu baax li door a tàmbali jëmm ji ni ko bindee fi xam ne mag ñii ñu weesu sax am xamuñ ko woon nii wasalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi jégalu ñëpp. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama fii da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo